ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gën a sell eh, tey nag seen émission démb mi ngi leen ñëwal fii ci penc mu yàgg penc mu mag penc moo xamante ni la ko tàmbalee ci ñoom maam Saxewar Fatma ba ci góor gi Abdou Abbas ba ci góor gi Abdourahman Diop ba tey ji ci sëriñ Moustapha Diop mi nga xam ne mooy sëriñ Cilmaxa di penc moo xamante ni tabaar fakal la histoire yàgg na fi boole koo git ñuy mbokki senegaal yépp ndax kenn umpalewul ni ma seen maam yooyu sant Jóob eh, ba ci Lat Joor ñoo àndoon ak Maam Mor Anta ak góor gi Xaalima Jaxate Kala eh, yàgg lool fii ci tund wi di Kajoor eh, dëkk boobu nag di Cilmaxa Mbakol moom la ñëw pour xamale leen ak bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa wa barakatu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar Elhadji Tall yaag ñi nga àndal ci liggéey bi yëpp di gan ñi ngi leen di dalal jàmm waaw ah, li nga wax nag histoire dafay histoire bu yàgg ndax boo fobee tuuru silmaxa rek lu yàgg la ndax ci ay mille six cent nangam la la la la sanc ci saaxeer Fatma wante ginnaaw bu mu fi nekkee ba amub diir boobu mooy barget fii ci tund yi moo ko yilif dañoo wax ni dafa wax ni li mu nekkoon daal xam naa suñu borom dikkal na ko daal mu ni li mu nekkoon daal daf ko xeeb dafa bëgg dellu ci bokki sëriñam yi daa dellu kokki ndax ñoo bokk benn maam ci mataanu mu mag ma tarbiyee dafa waat fa boppam ci lislaam ba mu fa jógee ba mu fa nee ba ab diir mu jóge fa yi ñu bis ñëw ba fii ñu naan sagata mu dal fi wax nañ ni sagata sax euh, li ñuy wax ni fi ñu daloon ah bi yàlla xiiree ci sanc fa mooy cilmaxa ngol ci la kër Amadou yàlla soqi ko bañ fi nekkee ba mag ñi ki ci la kéllal gee soqi ko sagata wax nañ ni fi ñu daloon ñu sanc dañ ni ay pël yu ndaw yee fa ñu ne nañ dem foofu ba sagataabe yee loolu la wax ne moo indi turu sagato waaye moom fa mu daloon ci boppam cilmaxa la tudd euh, boo jógee daaru mus si jëm Louga boo demee ba Ndoyeen boo jàddee boo doxee quelques kilomètres tolloo Kabdu silmaxa ngi sës ci télé bi seen i joor foofu mooy silmaxa ngol kon cilmax gi dafa euh, gent ay seegar bi mu dellusee fii nag fa euh, gaañu ñu delloo ko ci gentam bii lañ ko denc sa jinkom sa jinkam ah loolee mu wuti woon kokki nag yàgg nañ ca lool wante nuy dox ci jamono ba xam nga dameel yi faal lañ sant ñun ci dox ci jamono ba ba war a falu di jigéen ñu yël doomam doomam sant Jóob muy dameel Ngoone Latiir muy euh, waaw Lat Joor Jóob Ngoone Latiir def dameel loolu nag xaw naa boyalaat taal bi ndax dañoo mel ni la la saaxabar génn la saa xabar bàyyi woon ba dem kokki daa mel ni ci addil siwaat ab diir ba ñu nekkee ci loola ba histoire la joor li mu def lépp ci xeex doon ko ànd ak ay doom baayam ku mel ni Abdou Abbas mu sanc dëkk bii Amadou Ba Xuréeja ñooñu ñëpp mu ànd ak ñoom ak bokk yi di dox di dox ba suñ borom man ne lu bëgg a jeexal lool ndax sëriñ Touba waajuram ci saayir ak xaalima jaxate ñoom la la door jëloon def leen comme ay xaali ñu di ko atelier yi waaye sëriñ Touba feeñ ah liñ ni mooy xaadima rasul loolu daa daa di feeñaale ci feeñam ndax bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu feeñee ci màkk rek la xërëm yi commencé toj mais Seyxul Xadim bi mu feeñee fii ab diir Mbàkke Kajoor nekk ci digg Kajoor ñépp di fa jaar di dem ak a ñëw mu nekk ci ron waajuram lii feeñ di feeñ ba mu mat lim doon ñu jox ko ko ah ci la lii nag. daal di commencé nasax ndax dëgg ñëw na fekk fi lu dëgg nag mu kii ko loola nag moo indi la xew ci Lat lépp ak tubaab bi ak i bokkam ba ba génn àdduna ci ci 1886 ba ñu tegee fukki at nag ca la Abdou Abbas foofu dinaa fi taxaw tuuti ndax ab Abdou Abbas Mamar Soxna bay mi ko jur ak Saaxewar Soxna Mbay ñoo bokk lépp Saaxewar Soxna yi mu jur Lat Joor ak Maadu Muxreja Mamar Soxna Mbay mu jur Abdou Abbas Abdou Abbas wax ak sëñ Tuubaa ne ko dafa bëgg sanc ab dëkk mu ne ko gan cil maxal la fi lañ fi doon tudd Saaxewar na mu ne ko Geese Kajoor mu ni da fay dem dekkal ko loolu moo indi sama maam ñëw fii ci barab bii nu toog bi mu ñëwee nag sëriñ si ndonga ji si nga xam ne ñoo leen dalaloon ci yàlla bi waaye fi leen leen wàccoon fi leen fekkaat ñoom ba tey ah mu wacc fa gent ba nag loolu ci ndigalul mag ñi mu àndaloon ne ko boo ko dalloo ci gent bi fi mu nekkoon rek moom kon day daal di nekk dëkk boo xam ni diis lu ko mën a askanale kon faw nga nga nga daan gent bi tuuti loolu moo waral mu ñëw fii fekk sëñ ndongo ñoom ñu yaatal ko mu sëñcaat dëkk bi fii ci 1896 jumaa ji nuy janool xaalima jaxate moo ko rëddal xeble gi xaalima jaxate ak la moo ko rëddal xeble gi muy jàkka booba ay dóor-dóor la def jàkka ba mu dem ci sàkket ba mu dem ci tappaat ba mu dem ci baraak ba mu dem ci tabax loolu yëpp jaar na ci tabax bu mujj biñ ko bi ñu toj tabax bu mujj bii ñu toj yaatal ko def ko jumaa tabax boobu alaaji abdurahmaan mii ñuy bëgg màggalal euh, ñaanal ci altine mook alaaji ndëri sare sa waajur sa jaam mbokk sa doomi bàjjan moom ñoom ñaar ci ndégalul seen baay Ceerno Abdu Abbas mi bokk sama benn baay te nekke woon Kawlax ci lañu tabax jàkk ji tabax boobu boobu Braak la woon la ko jiitu Braak la woon bañ koy tabax man mii yàlla dogal na maa ngi ci Amérique ma xam mii ma nga ci Italie yónnee nañ ma leetar ma dajale sama ña ma xam ci Amérique ñu def lañ man ma yónneeku ko Alaaji Rahmaan yónnee leetar ma mu dajal la man yónnee ko Alaaji ñu tabax ci kii ba ci at yi paas yi yàggul ci eh, di ñetti at ñeenti lan xalaat ni nan koo def juma loolu yàlla dogal boobu alaaji Abdourahmane mi ngi fi waaye tële ne amatul xàmmi man maa ko doon taxaw gone yëpp jàpp ci gone yëpp muy gone juddoo ci kër gi ak gone yi wër penc mi te juddoo fi ñoom ñoom ñu jàpp ba yàlla indi ko muy jumaa ji waaye ci li ma xam daal 1896 la ko Abdou Abbas sañcaat ah, bi mu ko sañcee def ab diir ñu tëgg marché bi marché bi wuyu lool. fu ne nag kër yi nga fi gis nag man naa ne nag quatre-vingt pour cent bi commerce moo leen fi indi woon boo génnee njabaayeen ñi sant Sall nga xam ne ñoo moom fa ànd ak ñëw génne waa kër Abdou Abbas Faye Mamadou Ba Faye génne sa kër maam Mbalou Sare ñi si des ñëpp daanaka commerce moo leen fi indi woon ne fi ba naar yeeg ñëpp fekk leen fi naar bi yi ñëpp ne mu nekkoon dëkk bu ba ba yooyu jamono jamono connaissance ci la ñu ci la ñu lotissé biir dëkk bi defar eh, lotissé wàllu marché bi muy dox ba jëmi tey loolu daal mooy historique ci ma xam bu mujj bi maanaam dox na ci ma xam bu mujj bi nag 1896 ki léegi noonu la demee bu eh, sama maam nag Abda Baas ku ñuy wax ma jaxate Sall dëkk Njabaayeen moom la doon yónni di ko doxaloo service yi waaye ci lu nu histoire nettali bàyyi ma sekk mi nga xam ne Lat Joor ko jur booba mi ngi bari ndondol ndondol gee la nekkoon booba baabay ñi ngi koy wax ceepi mbaaxaan nekk fa comme nekk fa yor service su état bàyyi ma sekk ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey bi ak di def commerce yàlla dogal ci nu ko histoire mu dem ci sëñ mag bi wax ni ko daal fële daal euh, kéetul ci moom da bëggoon mu ne ko nag ginnaaw dangay jënguti jënd ak jaay sa baay Abdou Abbas sanc na dëkk am na marché dangay dem dangay ngay ñibbi euh, fa moom dend moom di ko doxal service service mu defe ko ni ko sëñ bi waxee fii ci sama kër gi bi mu ñëwee lañ ko wàcce woon li ma li histoire li ñu histoire wax soxna Kumba ci kër gi la ba mu ci liggéey ci kër gi la la woon mi jur alaaj Seex Kumba Daaro ak ak lay Kumba ak soxna Busa Kumba Daaro léegi ñoonu suñuy bokk lañ ci wàllu ñaxal suñuy bokk lañ ci wàllu ñaxal door a bokk ñun ci cilma ma sekk yoral ko dëkk bi ba bàyyi ko fi ñu jox ko Basiru doomam mu yor ko bi fi bàyyi ko comme chef de village di dox ndaw li Alaaji euh, Ablaay Kumba Daro yor ko ba mu demee ba egg ci mag mu jox ko Abdou Séer mi nga xam ni Séer séer baayam ak ma sekk ñoo bokk baay la door leen jur mu mu yor ko bi ma amee diir bàyyi ko fi ñu jox ko ala Ceerno Jóob moom ma sekk suñ mbokk ci tuube moom ndeyam tuube la jóge bi mu ko yoree diir bi yàgg ndax bi mu ko yor tële na te feebar sax war a yoroo tax mu jox ko mu yor ko ab diir bàyyi koo fi ñu jox ko ala Abdurahmaan mu dellusi ci borom ndax abdu abdurahman ab abdu abbas matarno bi abdurahman mu dellu ci loxom mu yor ko diir ba mu ko yor ma nekk fi ronam waaye mu doon yónni ma sekk doomu ala seex la joxoon dëkk ba ko yónni toog foon waaye rakkam aadi moo doon dox ba yàlla dogal alaaji Ibrahima jóge fi yàlla tudd lool ci man maanaam ñi ma fi bokk dëkkal ma mag leen di seen baay ñi ciy sama rekk daal mooy ñi bàyyi seex sama bàyyi seex mi bokk sama bàyyi jur te nit ñi ay gone ñoo ñooy sama rek waaye ñi ci des seen waajur laa bisimillahi rahmaani rahim ah ñu ngi nuyu suñu bokki cilmaxa yëpp ak bokki tund wi li ko wër ci 63 villages yi ak ak juróom-benn fukki chef de village yi nga xam ne si ñooy li dëkk cilmaxa ah tey jii nag ñu ngi ci ëttub maam Abdou Abbas ëtt bi nag li ko gën a amal doole mooy ëttub Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha mu mag mi fi la daan wàcc mbooleem ku bokk ci Serigne Touba fi la daan wàcc ci bii ëtt tey nag ñuy waxtaan ci Alaaji Abdourahman Alaaji Taal ngol-ngol jiite ko ak ak délégation bi mu àndal spéci maanaam spécialiste bi mu àndal ñu ñëw tey jii Cilmaxa pour di laaj ci Alaaji Abdourahman Alaaji Abdourahman nag mën nañ cee wax lool yaakaar naa ni Sénégal du ko dindi àdduna du ko dindi ndax yàgg na fi il est né en 1924 moom yàlla dogal na sëriñ Touba moom moo ko tuddoon ndax bu li tax sëriñ Touba tudd ko bi mu juddoo waajuróoma woo ku ñuy wax euh, góor gi gay jabaay mu doxe fii fekk Serigne Touba njaareem bi mu demee nuyu Serigne Touba ni ko euh, dañ ma fee yabal pour may wax ni El Hadj Abdourahmane dafa gane àdduna booba Mamatar Ndumbe moo ko fi yabal ci Serigne Touba. Serigne Touba dal di koy joxu tur jëlub téere téere comme li ñuy takkal kuy dog a juddu liir bind ca Abdourahman fekk Serigne Touba itam am ku ko gane àdduna moom itam ñoom ñaar ñoom la boolewu tur Abdourahman bi yàlla dogalee loolu nag nekk na fii at yu bari il est né en 1924 nekk na ko fi daanaka mos a fanaan àll bi mu fanaanee àll mooy bi mu demee Màkka Màkkatal Mukarram ci la mos fanaan àll lépp loo xam ni sii nit dana ko am ci cër fekk na ko fii ndax fii la Amadou Batoor Diop jóg ak Mamadou Diop Mamadou Diop bay Baye Mamadou Diop kokki ak Baye Batoor ñu ñëw fal ko mu nekk grand serigne grand serigne fi mu ne moo gën a rëy ci grand yi am ci kaw ndax grand yi nekk Dakar fii la ñu jóge woon ci saa jinkam jal fii la gonte woon dem Dakar moo waral dégg nga grand serigne yi dem ci waaye nag moom mooy grand serigne bi nga xam ni sii mooy grand serigne de cilmaxa ak grand serigne boo xam ne si grand serigne yu Sénégal yëpp la ñu fal ko ko fii ñëpp fekke na ko alaaji taal mii sax yàlla dogaloon na teew na fi mu dëkk fi ay ati ati at lépp lu ko nit ñi xam ci lu baax rek lañ ko xam mu wàññi ku boot ñëpp nag xàmmeewut xàmmeewut kii lii la xàmmeewut kii laala fii maanaam dëkk bi nunguutoon kuy tudd sax ni doxandeem am na fi ndax moom dafa waxoon ne li mu jaboote moom moo jaboote ñëpp mu nangu lépp nag boot ñëpp lépp lu baax loo xam ne si ñi nga koy def rek dee nga ma nga ci ba moo waral bi mu fi mujjee kilifa yi diine yi yu baree baree baree bari fii lañ doon wàcc si si kër gi mooy seen wàccukaay moo waral nag anniversaire euh, nekkoon quinze août la gaañu ci moo euh, at yee ñu génn bi deuxième édition bi ñu koy defal ñu koy defaat ci 15 août yàlla dajale ko ak altine ndax moom nituk altine la ndax altine kat fii la daan togg ay togg da dem ci dëkk bi woo nit ñi jëndi boisson loolu la continuer ba jataayam bee fee mu toog foofu la continuer moom mos a ci dara lu mu mos a am di nga def koo def ci doomu aadama yi baax na kon jërë ngeen jëf aouzu billahi min alsheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiil ummi wa ala alihi wa wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin ñuy nuyoo sëriñ Alaaji Taal ñu ngi lay nuyu di la eh, jaajëfal ci lii nga def ah, man nag eh, dëkkandoo laa ah, sama bàjjan moo fi ñëwoon biñ ñëwee ñoom njóobeen yii ñoo leen yaatal ñoo leen joxoon kër gii sama bàjjen dëkk bi ñu du ko wax matu mama Amar bi fi dëkkee ay at woo sama baay mi nga xam ne mooy càmmiñam fii moo nekkoon ab tokkëram mu jox samabaay baay bi mu ñëw def fii këram kon yàgg nañ xëy na nag yàggu gone lay doon ci man ndax euh, ñi ay 1800 la ñuy wax waaye lii nag ginnaaw bi la ci ay euh, maam Matar ak Euh, Baye Abdourahmane maam Matar nag li ma koy xam gone laa xaw ma ci lu lu bari loo xam ne mën naa ko mën a nettali waaye Baye Abdou moom ñoo jamononte bi ma fii kër gi ak kër gi benn la néeg bi sës ci néegam falaa daan fanaan pour wax la rek ak ak laabiram néeg bi sës ci néegam yaa daan fanaan soo mësaan génn ba guddi soo ñëwee fekk ñu ko ci bunt fee laay fanaan ci néeg fee laay kër gee bu tëbaskee jotee maanaa ne euh, luñ mën a rey fii maanaa ne ñëpp fi la ñuy bokk seen waa kër xale yi ñu ma toll fii la ñëw ndax ñooy njëkk a pare tabaski fii la fii la ñuy presque fii la ñuy tabaski Baye nag nekkoon na nit ku baax lool bëgg mbokk bëgg doomu aadama yi li nekk ci moom mooy teraangay addun terangal teral doomu aadama ni ko yàlla sunu borom xee wala xarit karam naa bani aadama moom dafa teral doomu aadama fu mu mas jotaay bu mu toog ak fu mu nekk faw mu teral ña fa nekk. waaw bokk yi gis ngeen nag seen émission démb tey jii ci Cilmaxa Mbakol ak sunu maam yu baax yi fi nekkoon sanc ko e, gis ngeen penc mii nga xam ne tey fi la sëriñ Cilmaxa dëkk e, penc maa ngi nii gis ngeen ko daara jaa ngi fi. lépp luy lu baax tabarkàlla mi ngi fi gis ngeen jumaa ji eh, sànq sëñ Moustapha Diop a ngi may wax ni war nañoo gërëm bu baax a baax a baax maître sayarloo Thiam këram a ngi nii jàkkaarloog jumaa ji waaye lu baax lu nekk def na ko ci ànd koog waa dëkk bi yépp ba tey jii wax dëgg yàlla seen jumaa ji tàmbalee woon ci ay jën ak i ñax ak i baraat eh, tey mel ni nga xam ne tabaar fakal daara ji ne fi muy loo xamante ni tabarkal la maam yu baax rek am solo kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm tey ñaan sunu borom tabaraka wa taala yàlla na barkeel eh, te yàlla defal leen xéewal ba lépp lu ñu man ren bu déwee ne ñu man lu ko ëpp surtout gone yi nuy formé di leen jàngal alquran yàlla jàpp ci ndax yàlla moom ku ko liggéeyal mu fay la waajo mi nga xam ni moom lañ fi fekkit muy sëriñ cilmaxa noo ngi koy gërëm bu baax waaye nag nee naa ko yow moom war ngaa sant bu baax sëriñ ma sàmba si la sama sëriñ ba ca ñaxal kër libaas ndax moo la moo moo tax nga am kër waaw fekkuma fi nag sama sëriñ sax soxna may si la moom sëriñ ma sàmba waaye maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu di ñaan sunu baay ba sunu sëriñ ba yal na yàlla woyofal suuf ci kawam te teg loxoom ci njabootam ba daaraam ja mel ni daara yi gën ci réew mi ki leen doon présenté émission bi nag di seen xarit El Hadji Tall Ngol Ngol ñu di jox daje incha allah beneen yoon ci beneen penc ci réew mi jërëgéen